gor a dëgg-dëgg mooy yàlla mooy yàlla mooy yàlla ndax euh, bi far billaahi bu fekkoon ni man dañ naan bi far bi sëriñ bay waaw waaye lus lu man bi far billaahi wa sunnati fa imsaakun aw tasrix jamaa allahu chamlahuma kon ñu xam ni yàlla rek ñu dénkoon tey kir ñu dénkoon joxaat nañ ko keneen dénk ko léegi nag yàlla mooy siiw yàlla mooy siiwul waachiruhunna bil maarufi defee nag sëy senegal nag moom beneen sëy la bu bu jaara bu doon sëyu tey ji dañ ko naan na na juyoo moo ko moo ko fa yóbbu déedéet juyoo moo ko fa yóbbu tax ñu di ko def te dara xewul rek moo tax aada su yu bari looloo koy yàq hmm. da ngay toog bu ci ndax itam léegi la nga bëgg nit jikko amul moom it mu war la nekkul ci moom hmm. bu demee ba sëy si nag danga war a ñaan loolu mooy allahumma ñu ne sur ismikal xaari ko baari lanaa fi hadihi almarati musaw topp ko topp ko topp ko ba mu àgg ngay génn teral say gan ñoom it ñu bañ a ak yàgg bu dugg see bala ngeen di def dara àndal ak moom ci wanag yi jàngal ko nu ñuy sangoo jàngal ko nu ñuy jàppee jàpp ba pare ñoo jullee moom ñaari làkk ku fi am doom ci yéen man de am na am ay bant am nga ko benn benn toq ndoxu góor ñaata cellule moo ca nekk ak million la. ku koy def nit. waaw kon doom nga am wala dénkaane nga am. dénkaane. ba muy dem na muy formé woo bay formé wu bay àgg. dañ naan léegi science àgg na ba ci ñu xam ci judd lan la mais dafay fekk mu formé wu. ba pare wu kenn. waaw mais bu ñu nekkee ndox. Mhm. kenn du la fexe ba xam. Mhm. waaye la ca yàlla di formé la ba xam ne bii am na lu taxaw. ci lay xëy na a xam. waaw ci ñuy xamee ceen bi. Mhm. mais bu dul loolu kenn koo xam. li muy nekk ci biiru ndey yëpp. suñu borom subhanahu wa taala day jéggal ndaw si. day jéggal ndaw si. day jéggal mu nekk ci biiru moo tax. eh ñu ngi daal Sénégal bi Sénégal beneen dëkk la léegi. <laughs> Ah, ah. bi man de dama